tàmbaleel yi comme ni ko Pape Sidi waxee Mohamed Habib moom nee na dañoo dañoo ñëw déjà dama bëggoon mu wax ñu déjà seen structure muy Supertech mhm. lan mooy Supertech déjà avant ñu ñëw sur le dispositif voilà euh, bon Supertech euh, benn dispositif la boo xamante ni c'est un optimisateur de carburant maanaam c'est-à-dire euh, dafay améliorer euh, carburant bi optimisateur de combustible léegi nag de fait que ni que bon euh, dafay defar une réduction de 18 pour cent si consommation carburant bi mais aussi dafay réduire tamit émission de gaz yi jusqu'à 85 pour cent voilà une fois nga immergé ko sa oto du am benn relation électrique ni mécanique bon dafay dox si diggante mooy filtre bi ak réservoir bi voilà si noonu lay demee léegi nag bon euh, pour gën a xuus si mbir yi dafa par exemple bon dispositif bi nii indi fer gi ci la bokk. waaw dispositif bi nii euh, pardon bu fekkee ne ni que. voilà comme nii nu mu demee nii léegi euh, technicien bi bu jëlee boo xasee ba dugal ko nii dafay euh, désamorcer d'abord batterie bi nga xam ne ni que du am benn circuit électrique léegi nag si lay rocc filtre bi bu roccee filtre bi ci lay jël li nii mettre ko en rapport nga xam ne ni que après dafay former wu benn angle 70 degré nga xam ne ni que bu dugalee filtre bi dina mën a flotter wu si biir. Euh, réservoir bi dina mën a flotté wu ci biir réservoir bi léegi nag à travers di mën a balancé wu léegi à travers vibration wu oto bi ak euh, énergie cinétique boo xamante ni moom le dispositif bi di dégagé loolu nag moom mooy créer des rayons électromagnétiques infrarouge léegi nag rayon électromagnétique infrarouge yooyu noonu nag mooy permettre euh, mu moom mooy doon taxale <laughs> moom mooy moom mooy empêcher mooy molécule carburant yi dajaloo moom mooy empêché wu molécule carburant yi dajoo léegi de ce fait nag bu boobaa dafay permettre eh, ba carburant boo xamante ni c'était non brûlé parce que bu fekkee oto la dafa am benn partie carburant boo xamante ni non brûlé les carburant non brûlé boobu nag moom mooy génn sous forme de gaz. Mm-hmm. moo tax des fois nga gis oto di daw nga gis. pot d'échappement bi di génnee ay gaz. Mm-hmm. léegi nag li <laughs> léegi nag léegi nag euh, Supertech bi moom dafay permettre. carburant carburant non brûlé boobu noonu daf koy reproduire léegi bu ko reproduire nag. daf koy capter voilà léegi nag kon cela veut dire que ni émission de gaz boobu noonu amoon dafay wàññeeku. mais aussi dangay am beneen carburant boo xam ne day rajouté aussi réservoir bi d'où une diminution de du carburant. voilà maanaam li nga doon perte ci essence. voilà dootoo ko perte dootoo ko perte dafay wàññeeku bu baax a baax. te wax na li tax nga doon perte essence. donc lii day ñëw une solution. pour perte bi nga doon perte si essence. Euh, nga nga nga bañ koo am. léegi da nga koy récupérer te dafa wax ne euh, da ngay économiser euh, dix huit pour cent. si sa consommation cest dire boo defoon cent litre essence. si sa oto. di nga maanaam boo ko utiliser maanaam li ngay am. si consommation boo amoon cent dix huit litres. Mhm. si kilométrage. Mhm. loolu la lay jox donc day ñëw indi un plus value. Mhm. dix huit pour cent sur le kilométrage. et la consommation de l' essence. avec la complicité de Grégoire moom am na ay am na ay images yoo xam ne mën na ko jàllale vidéo pour présenter gën a wax li nga xam ne moom moo tax mooy kii bi. ñëw nga si principe de fonctionnement bi. ak li nga xam ne moom mooy euh, supertech bi mooy matériel mooy dispositif une fois installé. si li nga xam ne mooy véhicule bi. mais est ce que Euh, déjà bon. am nañ fan lañ koy dugal ci mbandum essence bi. ci mbandum essence bi lay dugg waa waaw déjà bon euh, xam nañ ni fii nii Sénégal lépp dafa am ay contrôle et tout bu fekkee ni que benn dispositif dañuy kii. Mhm. heureusement bon nous avons l'attestation de CCTVA mooy centre de contrôle euh, technique. voilà mooy fi ñuy defee visite technique. Mhm. am nañ seen attestation yi am na aussi y a pas mal d'entreprises fii nii yoo xamante ni am nañu seen i attestation bon damay bañ tudd pour euh, publicité. donc Grégoire dina wane wàllu attestation yi ndax yónnee naa voilà voilà léegi voilà. voilà comme je l'ai dit aussi <laughs> comme je l'ai mm-hmm. <laughs> comme je aussi euh, mm-hmm. du am benn relation électrique ni mécanique donc euh, amul benn conséquence mooy lool et c'est entouré en céramique d'où mm-hmm. la durée d'utilisation prévue bien sûr sur ça et de dix ans parce que euh, dispositif bi mën na durer dix ans et que beneen avantage bi ci am aussi mooy euh, bu fekkee da ngay utiliser so da ngay utiliser dispositif bi bay dem ba changé oto di nga am nga possibilité jël ko dugalaat ko ci beneen oto bi Hmm? man am na loo xam ne tamit da bëgg naa ñu taxaw si tuuti mooy la composition maanaam. yéen waa ngeen paree ngeen bàyyi ñun tam am nañ ay questions. man non bii rek pare naa si. pare naa si de. non man bi ma kii. non non il a fait. damay man dama doon wax rek xam nga par exemple il a fait la euh, il a fait la présentation du dispositif. Mhm. wax na mooy fonctionnement bi. wax na ne am na sécurité am nañ attestation sànq wax na mooy kuréel bi saytu attestation bi. Mhm. ñëw na si durée de vie bi mooy. cinq ans. Mm-hmm. cinq ans comprendre nga. dix ans dix ans dix ans damaa jum. dix ans mm-hmm. Mm-hmm. laaj naa ko ndax à côté sécurité am na mu ne ma. amul relation ni électrique ni mécanique ni mécanique. donc mun nga ko dugal te du la du la du la sonal. mais lan moo tax man moo war a choisir lii def ko sama oto. waaw parce que au de la aussi euh, sur l'aspect économique mooy li ngay réduire si sa consommation au carburant. doy mais aussi am na aspect écologique. surtout waaw aspect écologique quoi parce que déjà euh, loi yi ñu teg si voilà wàlluñu loi yi ñu teg appliqué ko si wàllu émission de gaz yeeg yooyu noonu voilà mu ngi noonu tamit bon xaw na perturber suñu climat et tout donc euh, voilà lii dina anticiper bien sûr euh, ci politique boo xamante ni une politique bon xamante ni écologique la mhm. et que dina permettre aussi Euh, muy nguur geeg ñeneen ak ñeneen dinañ mën a gën a mën a liggéey euh, de manière euh, facile ci ci ci loolu noonu. maanaam Pape Omar yow laajte goo prix de wala am leen droit non loolu ak yaa benn droit au prix ak mooy bàyyi ko ñaata lay jar non non man dama bañ a laaj ñaan lay jar damay jënd avant ñaan lay jar bi man dama ñaan ba pare bañ may ma xam nga ma laajee njëg gi loolu day une problème njeexital bi nga wax dégg de rek léegi sa njëg bi njeexital bii mu tee nii di expliquer boobu maa ko moom man de fekkee naa fu mu ko joxee Abdoulaye Abdoulaye wala moomu loolu wala yéen a ngi am question léegi njëg li njeexital bi la rek njeexitalu laajte bi ñaata lay jar laajal loolu. <laughs> Ah, ah, Mamadou Habib sa dispositif bi. présenté nga ñu ko. macha allah. Mhm. c' est un c' est une urgence. Mhm. Mhm. ndax tamit prix urgence nationale. première chose doo xam ne urgence nationale la mooy. day. préserver sa environnement mhm. te l'écologie actuellement est primordiale waaw ndax dëkk boo xam ne moom déjà bëriwul garab bëri émission mm-hmm. donc yow dalay protéger sa santé donc le plan écologique sanitaire mm-hmm. beneen chose mooy ba essence dafa cher Sénégal torop carburant dafa cher mm-hmm. léegi sa dispositif bi litre mille francs da lay jar mille francs yi manqué ñaar dërëm bi <laughs> mais man Côte d'Ivoire la a mooy seer xaw mu tax <laughs> bàyyi ñu nag alaaji waaw waaw addiye addiye addiye waaw addiye euh, waaw bi ñaata la. waaw waaw comme comme ni nga ko waxee rek parce que nous comprenons ici que ni inflation carburant moom bon fii ba des années c'est des ak années yi di ñëw bon du wàcc. Mamadou waxal njëkk yi ngay nekk fii di expliqué. <laughs> loolu mën xam ñaata lay jar. mais lii bon parce que dafa am cinq modèles quoi. Mm-hmm. dafa am cinq modèles. dafa am A e. léegi modèles yi nag. dafa dafa composé wu entre quarante ba mille litres ça dépend aussi si capacité réservoir bi. ok ça dépend si capacité réservoir bi léegi nag bon prix. yow <laughs> waaw 66 bu fekkee 66 kon yow si modèle B bi lañ lay utiliser mooy comme bi nga téye. voilà yow yow man B laa yor yow lan nga. yow monsieur Alaaji yow mu yoroon B. ah. yow kii nga yor C. <laughs> oto bu mag la yor. <laughs> waaw léegi nag prix yi day varier entre 100 à 350 mille. cent à trois cent cinquante bi pour dix ans. pour dix ans boo jëlee cent cinquante mille. voilà nga diviser ko par dix ans. voilà donc mooy loolu kon déjà. Eh, mille par an déjà. voilà ci wàññim essence. waaw waaw donc délai de récupération capital investi bi day doon loo xamante ni lu lu lu yomb la par exemple bu fekkee da nga jënd dispositif bi moyen deux ans di nga récupérer sa xaalis bi nga ko jëndee et d'autant plus beneen avantage yu mooy. neuf ans yu des yëpp lépp loo xamante ni da ko consommer dafay am réduction. ba pare aussi day yokk puissance ah. pourquoi bi nekk kii à kii. waaw parce selon kii bee bi. voilà c' est que c' est par rapport ak capacité réservoir bi. ok parce que am na oto yoo xamante ni day jël ba mille litres. mooy gros porteur mooy gros yi waaw mooy day jël ba 1000 litres ñoo ñoo si gën a cher moo gën a cher am na bon kii am na de 40. am na 150 litres am na 70 litres am na 250 litres am na 350 ba 1000 litres. noonu la man saa bos mooy. bii nii bii mooy jar ñaar. 66 bii mooy jar 150 mille. 150 mille waaw. kii yow mën ngaa jënd loolu du dara ci yow. waaw ah. bii 70 litres la yem. Mhm. Mhm. waaw léegi nag man sama question bu njëkk mooy. Mhm. daf amoon benn société bu fi ñëwoon defoon publicité bu rëy. naa dañ leen di wàññil seen essence. ndakate moom. injecteurs yi pour ñu jot essence il faut mu am raccord raccord boo xam ne day dikk ba ci. moteur bi mu xëpp ko essence bu ko mhm. defee mu taal ko togg ko mu génn ci pot échappement beeg yooyu mhm. léegi moom da doon dem ba ci foofa mu yeew mhm. léegi bu ko defee moteur bi li mu soxla ci essence pour daw moom du ko jot da ko daa yeew léegi oto bi day ñàkk doole lool perte de puissance ah de puissance voilà mbaa yéen loolu dalu leen bii nag au contraire mm. bii dafay gën a yokk puissance oto bi parce que oto bi lu muy lu koy ñàkkaloo puissance par exemple même boo jëlee moto sax dangay gis des fois da gis nu muy raté affaire yooyu noonu nu muy raté c'est mhm. parce que ak euh, filtre beeg yooyu noonu la quoi lii nag dafay segg carburant parce que euh, carburant bi nekk fii Sénégal da ngay gis que ni que voilà dafa am euh, waaw dafa des quoi qualité gasoil dafa des qualité bi léegi nag de ce fait nag boo demee ba ci biir da ngay gis ci biir réservoir bi boo demee ba vidé sax da ngay gis tilim tilim yi ci am quoi résidus yi ci am léegi de ce fait nag lii dafay segg loolu raxas ko léegi dafay de telle sorte que dafay gën a yokk sa puissance auto en plus de cela tamit bon bu wàññee émission gaz yi tamit dafay gën a firndeel loolu noonu <laughs> léegi moom lay jël wala gasoil lépp lay jël maanaam yëpp voilà te yemul ci oto yi kase mën na dem aussi mooy ci bateau yi mën na ci dem. bato ah, moom ñun jëluñu bato mais même si groupe. <laughs> xam nga grand wax dëgg yàlla. Uh-huh. man je consomme 9 litres au 100. Uh-huh. Uh-huh. sama malus écologie. ça varie entre 150 je je participe vraiment à la pollution de la de la planète. franchement parlant. sa empreinte carbone dafa. sama empreinte carbone dafa soof. loolu mooy fay naa ko état bi nag. jël fayee ko nañ <laughs> ko mm-hmm. mm-hmm. euh, est-ce que mën naa mesurer. Mm-hmm. avant et après pour voir. que le niveau de consommation de du carburant a drastiquement baissé. bien sûr une fois nga injecté ko heureusement parce que am na oto yoo xamante ni. Euh, daf lay woon directement mooy consommation moyenne bi sur cent kilomètres. léegi nag lii une fois ngay immerger ko sur le champ rek da ngay gis euh, dafay réduire automatiquement dafay réduire da ngay gis euh, consommation moyenne bi nga doon am dafay réduire ah récemment nous l'avons tenté avec euh, benn particulier defar nañ defal nañ ko ci moom il consommait douze virgule deux litres par cent kilomètres mais une fois ñu immergé kii bi affaire yi wàcc na ba huit virgule quatre ah donc voilà voilà carrément donc am na une diminution significative boo xamante nii am na ci et d'autant plus aussi avec le temps aussi tu da nga dem ba ressentir que ni yow li nga doon consommer si carburant dafay wàññi. Pape Sidi attestation yi moo nekk nii. ñi nga xam ne ñoom ñooy vérifier. Mhm. ndax lii dina am na sécurité. man Omar Thiam mii ñun ñëpp xam <laughs> lay signé <laughs> mooy mhm. sécurité bi. ak gris leer ga baabu jaxam rek bagi saa yi moom moom moom teer bi leen ko defaral moom moom teer bi gërëm lay gaar mu yéeg dem dox ay soxlaa jox dégg nga ma naan kaa tey sept heures trente cinq maa ngi si peut-être une dernière question me concernant mm -hmm. l'installation est-ce que ça nécessite à ce que ñu dajji sama oto bi tijji ay affaire <laughs> dajji kay non mais parce que da ngay dem ñu jël ay fil kankan <laughs> non ça que c'est simple euh... non non c'est très simple maximum maximum bu bu bëree waaw c'est très simple maximum minutes lay doon ah ah! maximum vingt minutes lay doon parce que bon bu fekkee ne ni que sa kii bi si banquet arrière bi la nekk mooy filtre bi technicien bi bu ñëwee ba soulever euh, chaise yi rek après voilà sur le carburant léegi da koy jël bu ko jëlee immergé ko tëj jeex na après nag lii mooy liggéey lépp. léegi li nga doon wax par rapport ak inclinaison beeg et cetera. Mhm. parce que bon euh, euh, malheureusement <laughs> amuñu fi exemple pour kii nii oto pour kii mais. buñ ko xasee ba kii ko. naa de xaar ma dem indi sama. <laughs> comme léegi bu ko kiiwee moom bu ko bu ko xasee ba immergé ko. voilà affaire bi dafay formé wu comme genre angle comme ça nii lay def. day doon cent day def angle soixante di degré léegi nag xam nga boo boo boo solee sa carburant affaire bi day flotté wu. oh muy flotté wu nag léegi lii moom mooy dégager ay rayon yoo xamante ni sont des rayons infrarouges léegi nag rayon infrarouge yooyu noonu. Supertech bi mooy dégage ay rayon infrarouge mooy dégage ay rayon avec aussi euh, mooy euh, comment dirais-je vibration moteur bi. Mhm. léegi nag rayon yooyu noonu muy dégager moom mooy permettre. molécule carburant yoo xamante ni dafa doon regroupé wu daf leen di tas léegi nag bu ko tasee nag loolu moom mooy permettre que affaire yi di gën a liggéey parce que molécule yi bu dajale woo donc day signifier une consommation fort mm-hmm. léegi nag bu tasee dafay signifier aussi une consommation boo xamante ni dafay faible waat bien sûr fil de fer bi moom duñ koy long bi moom mooy doon liaison bi nga xam ne ni que bu ko xasee ba kii moom dafay pincé nii kii ko si filtre bi léegi nii lay formé woo quoi angle bi nga xam ne ni que lii day dugg léegi lii nekk nekk ci filtre bi ko maanaam nga ko defal sa bopp dafa am benn. <laughs> bien c'est bien possible ah. flotteur bi dafa ah. am benn flotteur boo xam ne moom moo lay wan. Mhm. sa essence fii la nekk. Ah. Mhm. wala yaa ngi la rose waaw zose boobu. Mhm. léegi zose boobu foofu lañ koy accroché. voilà foofu lañ koy accroché. moo tax ma ne la mën nga. kii xam kii yow xam nga alaaj bu ñu fontoo. lii man yaa ma koy installé. waaw si parce que aw ma tournevis biy kii bi yomb na di. jënd tournevis pour visiter benn affaire. xool mécanicien bi rek mu <laughs> euh, ci kanam tuuti je pense que beaucoup de gens vont se demander. Mm-hmm. naka la ñuy def. ba am lii. Mhm. waaw mooy super tech mhm. fan lañ koy jaayee. Mhm. nous on vous a invité parce qu'on trouvait que c'était vraiment participatif par rapport à la technologie. et surtout à l'écologie mais waaye wax dëgg yàlla ay eh, écologie yow taxumaa wax. man sama digganteeg yàlla rek laa man wata bi ma yor day naanu essence daal. naanul essence naa ngi sax. waa borom njëriñ li muy naan. ñaata mu doon ko wàcc deux points lan nga. man xam naa ni day woor ngoon gu jot rek. deux point quatre. <laughs> damay laaj. alaay bu laal loolu. wala deux point huit. 3 point 0. 3 point 0 alaaji 3 bu laaj loolu moo tax. yaa ko def waaye yow Mark nga ne lu maa ngi ñëw nga jox ñu numéro bi. d'accord si vous voulez aussi le numéro pour avoir ces super tech pour wàññi seen consommation d'essence. Mhm. c'est bien possible. Mhm. Euh, cette technologie que nous a découvert Pape Oumar merci pour cette mhm. belle découverte. jërëjëf ci alaaji dina. daanaan la de. di ko dina noo di ko dina nu pontu jam bu nu paaxalaal. taxawal. ak leneen li Omar day dem wër ay affaire yu cool mais Pape Omar léegi choisir Mamadou man lay may affaire wala Abdoulaye. <laughs> mais maye nañ ko ba pare sëñ bi yow yaa tardé. yow bul def affaire politique yi. <laughs> conseil constitutionnel yow rek la ñuy dégg. kan mooy conseil processus bi yëpp la ñuy reprendre. maa dañ koy dialogué. <laughs> nan dialogué nii. mais mais mu xoolaat constitution bi lan la wax. article ah, onze. Ah, en cas de en cas de égalité des des doom ndey. je fais appel à l' article onze. ki fi njëkk. Mm. moo ko moom. je fais appel à l'article mariage. damay bañ def damay bañ digression rek. Hmm. mais si dialogue boobu ngay wax noonu. Hmm. docteur Khadim Bamba Diagne daa am lu mu wax loo xam ne nee na. booy dañoo bëgg a baax mag yi bañ. Hmm. <laughs> ah. ëpp réew mi ku ne la wax sa maam bu góor. am léegi yow yow jëlee kees bi. non non man ma jël nga liiraale notice bi sax. comme gën a comprendre comprendre naa lu mu expliqué jarul notice. <laughs> yow yaa soxla notice. bu ngeen ko defalee Abdoulaye bàyyi ma. Mhm, mhm. <laughs> wala defalu leen ko defal ma. mooy seen siiw kenn doon leen wax télé. waaw <laughs> ah boo léegi xam nga lu tax ñu war la kaa jox. jërëjëf ah, Fall. lu tax ñu war la kaa jox parce que sama essence man itam taxawaalu. kat léeg-léeg ma dajale ba am yaari junni rek digg taxaw ci station bi jox ko gars yi ak xol bu naqari naa jaay waay. ñaari junni doo sori. ma ne ko waaye li ma la jox nga ma ñaata xam naa fi nga ciy dem du sori <laughs> da ngay passé Colobane gi mu ne la. bu yow. ma ne lii benn euh, technologie la boo xam ne. Mhm. ay ndawi Sénégal ñoo ko indi ci réew mi ngir mhm. euh, yombalal ñu suñu njëndum essence. Mhm. waaye bu weesoo njëndum essence bi di bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm alam bi ba émission gaz à effet de serre yi bàyyi ko ci suñuy ndaamaar. wàññeeku. investissement bi nag mittiwul mhm. mën ngeen a denc lii ñuy wax ba mhm. bis bu leen yàlla dimbalee mhm. ngeen am njëkk bu ngeen ko jëndee mooy Supertech ngeen jënd ko réservoir boo am gasoil mbaa essence mën nga ko jënd boo bëggee yeneen xeetu leeral ay question yoo xam ne daf laa intrigué pour sa consommation essence gën a wàññeeku numéro bii ngay woo waxal muy 77 77 955 955 68 68

waaw 965. 955. 955. oui 68. 68 68. aywa numéro boobu neex na de.